université nii man la taxi man Sonko gis ngeen escadron yi gis ngeen buntu université nii ah, gis ngeen ko nii ah. waaw beneen escadron bi laa leen wan ni gis ngeen gars yi gis ngeen fi taxaw nii gis ngeen escadron yi. asalaamaaleykum mbokki internet yi safoo seetaan de la commune dal leen jàmm ci xibaar mu di teelu Ousmane Sonko ci 3 novembre ca fa nga xam ni moom moo di àttekat bi ci eh, mbiram ak Adji Sarr mi ko duut baaraamu ko. lay de la commune soxal loolee nag journaliste bi di Pape Alé Niang la mu xamle moom moo di ni tàmbali nañu rek daal di mobiliser euh, lépp lu euh, nekkee euh, ca police ak gendarmerie ngir rek ñu xool naka la ñuy bunkeriser lii di ndakaaru maanaam naka la ñu koy wëree ka rek daal di fay samp seeni ay nit moom Pape Alé Niang di xamle ni nag soxal teewlub Ousmane Sonko boobee nag lépp luy force daal di nañu koy tàmbalee dajale mu ne sax ba daal di jéggaan yi ca fa nga xam ni moom moo di intérieur du pays fu ca mel ni ca Fatick A nag akup correspondance bu bind 31 octobre nga xamante ni ki bind di euh, chef d'escadron Alexandre njuma John euh, daal di koy rek euh, adressé ki nga xam ni di général division au commissariat de la gendarmerie nationale ak itam directeur de la justice militaire ne nag loolee nga xamante ni moom di correspondance bi la mu rek bind moom moo di douze escadron ñoom dañu leen di rek daal di mobiliser maanaam jëlee leen foofi eh, ca Fatick te escadron bu ci nekk am na lu tolloog soixante quinze gendarme maanaam juróom ñaar fukk ak juróomi gendarme loolee lépp nak ñu nar ko rek daal di dajale indi ci ndakaaru bu ñu ko xayma tollu na ci neuf cent un ay takkader yu nga xamante ni nag dañu fas yéene daal di bàyyeeku ci foofee di eh, Fatick eh, maanaam intérieur du pays bi ngir wutal si ndakaaru njaay loolee lépp nag ngir xool ana yi amali akub sécurisation waaye itam akub saytu ci ndakaaru ci jamono ba nga xam ni dañu fas yéene teewlu kii di Ousmane Sonko yenn ci internet ak ñoom daal di sampopa laaj ndax teewlu Ousmane Sonko donc dafa jàll boobu lépp mobilisation bi yëpp bu dee dëgg la ñu ne nag amaana sax ñu ngay jiñ ku jega ne ñoom ñoo yee fitma waaye nag ñoom ci tànk yi nga xamante ni moom la ñu jël boo fexee ñoom ñoo rek daal di bëgg yee fitna wala sax am na leneen lu ci laaxu mu